ñaanal njabootu Serigne Touba yëpp di ñaanal population wu Touba ak euh, ñi ñi nekk ci département wu Mbacké bi visite mii nag li ko tax a jóg mooy bëggoon ñëw gisal sama bopp ndaxte bi ma ñëwee gis naa dossier yëpp fu ci ne wax nañ ma chantier ya fa nekk fu ci ne wax nañ ma avancement ya ca nekk ak jafe-jafe ya ca am waaye dama jàppoon nii dana baax ma ñëw ànd ak ñii ma war a àndal ci service yi ñu dem sur le terrain waxtaan ak ñay liggéey liggéey bi xool yi nga xam ne nii avancé na ñu xam li tax mu avancé bu baax a baax ñu jàngat ci yi nga xam ne am nay jafe-jafe ñu jëm koo gàttandu ba nga xam ne danañu trouver ay saafara yi gën ci temps bu gën a gàtt fi ñu njëkk tàmbalee nag mooy Mbàkke ñu visité fa benn forage bu mag boo xam ni tey ñu ngi sant yàlla di félicité ñi nga xam ni yëpp liggéey nañ ci gouvernement bi fi jógee moom moo ci liggéey nañu nangu loolu liggéey bu baax la ndax Mbàkke amoon na problème mu ndox problème mu ndox bi bu ñu gasoon ay forage junniy forage ci Mbàkke du tax mu réglé ko borom xam yi suñu service dañoo dem ba Sadio def ay gëstu gis ci ni am na fa ndox mu neex ndox mu baax foofu la ñu gasee forage yi ñu génnee fa ndox mi muy lu ñuy wax champ captant ñu transféré ko ci 50 kilomètres mu ñëw Mbàkke ñu def fa forage bu rëy rëy bu mucc ayib nag boo xam ne bi tey Mbàkke amatul problème mu ndox ndox moom incha allah bëgg nañ ko yóbbu sax ba Jurbel waaye li nga xam ne itam yitte la ci ñun mooy dëkk yi nga xam ne ñu ngi wër foofu saajo mooy Sadio ci boppam waaye itam Taïf ak Bayla ak yeneen i gox ñooñu ñëpp canal bi romb leen ñëw Mbàkke bëgg nañu ñoom it ñu branché leen ci pour ñuy mën a am ci ndox mu neex moomu dégg nañu seen seen mébét ak seen jàmbat incha allah danañ ci taxaw nu mu gën a gaawee danañ wax service yi lépp lu mu laaj ñu def ko ngir ñoom itam ñu mën a jot ci son ci ndox moomu ndax ndox ma ci seen gox la jógee euh, war nañ cee mën a jot ñoom itam ba ñu jógee mbàkkee dem nañu Touba seeti fa ay chantier ci inondation yi gis nañu ci yoo xam ni euh, Touba ca kanam moo ko liggéey pour fexe ba booy dugg tuubaa bu fi ndox mi di taa ñu teel koo xam indi ci ay saafara gis nañ ci ay ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaree xëy na yàlla dinañ ci suturaal dem nañu ngele mu xool liggéey bu am solo boo xam ne bii ñu ngi ko fay def ci ay bassin ak ay captage yu ndox mi ak bu ñu koy transféré ci feneen boobu itam avancé na bu baax a baax waaye am na quelques jafe-jafe yoo xam ne ci liggéey bi la euh, ci plan technique ak fay yoo xam ne nii waroon nañ ko fay entreprise yi ñu fekk ko fi nag dañu ñëw fekk fi entreprise yi nañu danañu taxaw ndax am na xaalis bu ñuy xaar ñu jox leen ko ñun itam nag ñu ne leen booy liggéey ak am réew mu jaar ci changement mu am équipe bu bees bu ñëw doo ñëw rek taxaw ne ko da ngeen ma ameloon nangam danga koy may mu toog ba jàngat ñoom itam ñu laaj leen wax nañu leen entreprise bi ni leen may leen ñu ñu jàngat xool li ñu leen jot a jox lan la ak fan ngeen ko def li ci des ñu xool nu ñu koy lijjantee bu leeree ci suñu bopp loolu nag danañ ko def ci ni mu gën a gaawee parce que urgence la incha allah pour que ñoom ñu mën a yeggali liggéey bi ba parce que gis nañu ngelaw ma bu ñu ko defee dina wàññi lu bëree bëri ci inondation yi ensuite nag ñu visiter aussi ay forage benn bi nekk Bagdad Bagdad dakaar ga ma nekk yaakaar naa tey yi may gën a jot ci ay ay complainte ak ay jafe-jafe yu jóge Touba ci zone boobu la bis bu ne ñu yónnee ma ay video yónnee ma ay bidon yu jaune naan ma amuñu ndox mu yitte moo tax bi ñu ñëwee foofu la ñu njëkkee gis nañu ni def nañ fa forage bu baax comme ni ñu fa defee yeneen forage ñu wër dëkk bi yu bees forage boobu nag li tax doxagul rek mooy courant la ñu amagul waaye nee naa leen ci nu mu gën a gaawee dès lundi incha allah ca Dakar danaa fexe ci bureau bi service yi ñëw ñu toog ñu régler boobu problème parce que problème dañ koy régler bu ndox amee ñu ne ndox maa ngi ci suuf courant rek moo ko tee génn Sénélec war koo def la téye Sénélec ba defu ko war nañ koo xam ñu dem fexe ba saafara loolu te kilifa yu mag yëpp dinaa leen ci wax ku ci ne loo ci war a jàpp nga def ko ci pour que Sénélec def branchement yi ñu génnee ndox mi fii ñu mujje nag moom itam beneen forage la boo xam ne bi am solo la boo xam ni dana li muy yokk mooy xarañte bu bees la dañ daan def ay forage yu mag rek mu jëm ci kaw bàyyi bii dafay indi cap euh, stockage bi lay yokk maanaam bu ndox amee ñu duy ko ba mu fees boo xam ne mën naa demi fan ñu ciy jëlee di dugal ci biir dëkk bi balaa moo jeex ñu yokkaat ko loolu nag xalaat la boo xam ne rafetlu naa ko te ñu ngi yaakaar ni bis bu ñu yeggee ci màggal gii ñu jëm lii lépp bu ñu ko boolee dina wàññi bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne doon nañ ko am ci ndox ci màggal bi bu ñu fexee daal comme ni ko xalifa bi waxee bi fi président ñëwee wax na ko sëriñ Muntaxa nee na ko yitte la ci ñun ñu def ba nga xam ne ndoxum Touba dinañ ko régler définitivement mooy ndox mu ñu naan ak ndox mi nga xam ne nii mooy assainissement gàtt na nag bi ñu yegseeg léegi ñu saafara lépp waaye na ñëpp xam ni amuñu beneen yitte bu gën a rëy ñu régler lii ci Sénégal waaye rawatina ci dëkk bi bokk na ci li tax ñu def ko dafa am lu ñu indi ci projet bi lu tudd revitalisation des vallées fossiles ak kanaal di Kayor ak canal di Bawol fépp fu ngeen gis ndox daan fa jaar ci at ca gannaaw suñuy maam danañ fexe ndox dellu fa borom xam-xam yi def nañ ci ay gëstu indil nañ ma dossier bi étude yu baax a baax la danañu mobiliser sénégalais yëpp mobiliser communauté yi mobiliser suñu armée nationale mobiliser képp koo xam ne yaa ngi liggéey pour ñu ñu liggéeyal ko suñu bopp. gas canal bu jógee lac de Guiers mooy indi ndoxum Touba waaye mooy continuer ba zone des Niayes fépp fu ñu war a béyee mu dem fa maa ngi liggéey ak ministre de l' agriculture fépp pour que fépp fu canal bi jaar moom itam mu mun faa jëlee ndox xam ne ni la béykat yi di béyee ak maanaam daal pour gàttal. gis-gis bu bees la ñu bëgg a indi ci wàllu ndox loo xam ne lii fii ak 50 ans wala 100 ans incha allah dootuñu wax waxi ndox parce que danañ ko dugal définitivement ci biir réew mi ambition boobu nag lañu ñu bëggoon tey partagé may gërëm ñëpp ñu ànd ak ñun monsieur le gouverneur monsieur préfet ak sous préfet yi dañ may wax sax léeg-léeg yow comme yaay autorité bi leen féete ko waroo leen di di félicité waaye nag man dama jàpp ni boo ànd ak ay nit ñi liggéey ak yow ak loo mën a doon da ngay félicité da nga leen di encouragé da leen di gërëm ci taxawaay bi noonu laay gërëmee itam directeurs yi ànd ak man jóge Dakar ak ñii ñu fi fekk chef de service yi ak communauté bi waaye yéen itam média yi ngeen xam ne yéen a ñu gunge ci biir liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm.